PDC kenn gisulante boobule mars journal bi nee na bëri na tamit ay militants yoo xam ne teguñu seen tànk ca diwaanu Géejawaay googi nga xam ne fa ñu doon ñaxtoo la di kaasal Karim Wade ngir nag mu daal di dellu si si réew mi yàq nañu musiba ak mbelengaana njiitu réew mi di président Macky Sall ndax dañoo jàpp lépp moom la waaye nag ñi nga xam ne ñooy tubayul Karim Wade nee nañu dellu si wàttu Karim Wade ci réew mi loolee ab demande sociale waaye tamit ki nga xam ne moo jiite cadre yi nekk Senelec moom tim déglu nañ ko ci lu jëm ci wàllum dossier ak li boobee yéen gi de la sa moom xëy wax ci lu jëm ci élection député yi ñu dég la journal bi nee na ñi nga xam ne ñooy waa benn bokk yaakaar dajale nañ lu toll ci 540 ci diwaanu Ndakaaru yéen i gi xëy di ñu xibaar naan ñu député bii di Marème Soda Ndiaye daan fekki aar Sénégal ñoom Thierno Alassane la ci diggante ak bu Médina di Bamba Fall journal bi nee na kenn ku nekk ma ngi yàkk musiba ak mbelengaan moromama yéen a kaay gi du source nee na coalition yi dafa mel ni jamono ji gars yi përeeguña ngir nag dem ca làmb ja ndax amugul benn coalition boo xam ne déposé na ay candidature am ci élection yi nga xam ne moom la ñu tëg ma la yéen a kaay gi délibération xëy di ñu xibaar naan ñu musiba ma bu kumba gi nga xam ne moom ngeen doon dégg fan yi ca diwaanu Thiès si la ñu bëgg dellu si waat ay bés yi ñu génn dafa am benn xale boo xam ne juróom at la am dëkk Thiès ci quartier Darou Salam benn waay moo ko jëloon yóbbu ko ci ay bat bâtiment ngir bëgg ko rendi ba nga xam ne rendi moo ci des fa la ko gars yi bett waa moo bëggoon a def ñaawteef gi journal na teg nañu ko loxo yéen kay gi di Sud Quotidien xëy di ñu xibaar naan ñu tëbaski gi nga xam ne moom la ñu dëg koy waajal bu baax a baax ndax tëbaski 2022 nee nañu lépp loo xam ne aju na ci wàllum taxi ci xar yi nga xam ne mooy jóge Mauritanie di dugg ci Sénégal taxe yooyee teggi nañu ko yéen kay gi di enquête xëy di ñu xibaar naan ñu bëri na ay erreur médicale yoo xam ne dafay faral di am ci lu jëm ci wàllum wér-gi-yaram gi moo tax pelent téye ma ngi mel ni tulleeg màlle waaye nag heurte la pression bi nga xam ne ñoo ngi koy teg ñii nga xam ne ñooy fajkat yi di leen yóbbu fa mbaxana doone benn ndax loolee solution la mbaalo jëcaama di yëngutu ci wàllum wér gi yaram ge nee na en tout li amba de sall lii dina tax maanaam ñu daal di exiger qualité boo xam ne bu am solo la bu mucc ayib la maanaam faju gi ci bërëb fajukaay yi yéen kaay gi di réew mi ko di cee xëy séq waxtaan ak gi Arman Kofi di ab artiste nekk doomu réewum Côte d'Ivoire nag ma ngi ci Sénégal di dund ci réew mi boobaak léegi toll na ci fukki at moom artiste bi artiste la waaye la waaye tamit wax na ne jamono ci ma ngi yaatal am njàngam ci lu jëm ci wàllum biologie texte yi nga xam ne ma ngi koy faral di def ak titre yi nee na dafay ne mooy alxuraan ji maanaam ci saint coran wax na tamit texte mi nee na daf ciy fàttali ak di bëggloo nit ñi yàlla ak di leen bàyyiloo xel yàlla ba tey moom gi axma ko fi artiste bi pharmacien bi wax na tamit ci projet yi nga xam ne moom la na saxa yéene kaay gi di sunu làmb daal di dellu si ci ñi nga xam ne ay roi des arènes lañu ci Sénégal journal bi dikk na ci Mohamed Ndao Tyson B52